Ya yónni won Muhammadul Makiyo. yaa Rasulallah. ya bal Muhammadul Makiyo. si Bamba remercier la presse parce que ñun dañu gëm né xex biñu xex ba yegg fiñu yegg bu ñu si àndul woon ak euh, presse bi ñom aussi japp si de la manière la plus citoyenne. Maintenant, na am donc gagné mais peut-être que euh, dana le a metti mais euh, population yi un ci c'est kër yi il est di yóbbul information yi ba jot ko yi di information collaboration entre ministère de la santé dispositif sanitaire et la presse sénégalaise donc loolu laa commencer d'abord bu ma je loolu ba à ma ne ñëw euh, Touba pour euh, xol déjà liñu fi tek pour préparer magal bi ci walu wërgu yaram est-ce que lepp mat na euh, ñëw naa euh, xool naa def naa le tour wax deug yalla amna donc xel bu dal que né dañu dem ci magal bi ci environnement wu contexte pandémie si ni mu gëna a rafet parce que déjà njàngal mu njëkk bi moy buma khalif bi recevoir ku tedd gi bu mu génnee déjà l'année wax deug yalla joxe na leçon au Sénégal parce que nous guenné ak respect mesure barrière nous avons ko nous nek na nu rafet noo xamante bu ci ñepp royee rek inshallah dem ci magal bi dans les meilleures conditions. mais aussi euh, profitez de cette occasion bi pour euh, dem l'hôpital hôpital bu bees bi mois de mars inshallah allah ko livrer mais aussi nous avons ndax euh, personnel bi mat amna 5000 agents yo xamante

li ma mën a wax daal mooy que ne alhamdulilah te léegi bi ma porte parole recevoir itam génn na si waxtaan bi ne ñun dañoo taxaw pour gunge pèlerin bu nekk si màggalam ba képp koo xamante ne ñëw nga fi nga mën a dellu fa nga jóge woon dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé maa ngi leen di remercier. yaa yónni woon Muhammadul Makiyo. yaa Rasulallah. dellu yabal Muhammadul. mag yooyu. Bamba jërëjëf